mbokk yi alhamdulilah alhamdulilah ñu ngi war a jël ay cinquante neuf ci suuratul isra fi suñu boroom jalla wa ala di waxee ni wa ma mana'ana an nursila bil ayat illa an kazzaba biha al awwalun bokk yi kon alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom mi ñu dajale ci néegam bi ñu fas yéene jàng la nga xam ne muy ab téeréem suñu yonente sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daan ci ñaax jullit ñi di leen ci bégal du daje mukk benn mbooloo te néegu borom ba ñu jël téeréb yàlla ba di ko jàng lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal dal googu nga xam ni li ëpp ci àdduna bi tey moom lañ ñàkk muy sakina dana leen yiir ak yërmandeem yónni ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yi kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñ jataay bi mboolem li fiy jóge it ak fu mu mën a yegg ci kaw suuf ña nga xam ne ñoo koy déglu wala ñu koy seetaan yal na yàlla boolu ñu ak ñoom ñépp ci ñoñi alquran doonte ne ni am na ñoo xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom ñoo ñit di jara ñaanal ku yàlla may sab loxo jotit nga xalaat noo leen di man di dimbali bokk na ca sunu mbokk yi nga xam ne ñooy waa xam sa diine ya wala xam islam point com boobu it di site boo xam ne programme mu jàkka ja rek dafa nekk ak suñu télévision bu bees bi nga xam ne moom mooy islam tv yooyu yépp ay mbokk julit ñoo ko sos soxlawuñ ci dërëm soxlawuñ ci diinaar xanaa lu dul ngërëmal yàlla jalla wa ala kese yal na yàlla jàppale leen ci defal leen ko ca kon tey jii mooy 31 ci weeru juillet 2019 di dëppoog ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci zulqaada ci 1440 heure boo déggee ñaar fukk ak juróom-ñett it dana la fàttali ne kon ndekete suba mooy séentu bu jëkk te la nga xamee ni nii mooy weeru tabaski suñ ko gisee àjjuma nekk benn bis ni ngi noonu suñ ko gisoon ñu mottali kon insha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا
يوم لآدم فسجد
بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني وما منعنا أن نرسل بالآيات ñun day dara terewuñu ci ñi yónni ay kawteef illa an kazzaba biha al awwaluun lu dul ne da ko weddi woon ña nga xam ne ñoo jiitu woon wa aatayna samuuda naaqata mubsiratan fa zalamu biha yónni joxoon nañ waa samuud giléem ga nga xam ne lay wu leer la waaye ñu tooñ ca giléem googe wa ma nursilu bil ayaati illa taxwiifa ñun day duñu yónni ci ay kawtiif lu dul ngir tiitalaate rek wa id qulna laka inna rabbaka axaata binnaas bi ñu lay wax ne la sa borom yàlla day feek ne nit ñi wa ma jacalna ruya allati araynaak ñun day def ñu woon la nga xam ne nii a lu ñu la won la ruya dana firi gént dana firi loo xam ne nii lu nit ki gis ci yaqin la kon la nga xamee ne nii aji gis alati araynaaka ba nga xam ne wonoon nañ la ko defuñu ko illa fitnatan linnaas defuñu ko woon lu dul fitna ñel nit ñi naka noonu wa shajaratal mal'unata fi alquran ak garab googu nga xam ne dañ koo rëbb ci alquran wa nuxawifuhum nekkoon nañ di leen tiital fama yaziduhum illa tughyanan kabira waaye dolliwu leen woon lu dul ak dew goo xam ne nii gu màgg la mi ngi noonu mooy jéggi dew gu màgg wa iz qulna lil malaikati isjudu li aadam fàttalikul ba ñuy wax malaaka ya sujuutal leen aadama fa sajadu illa iblis ñoom ñépp ñu sujud ba mu des iblis qaala a asjudu liman xalaqta tiina mu ne waaw yàlla ndax man dana sujuutal koo xam ne yaa ko bind ci ban qaala araaytaka haada alladi karramta alayya mu ne ma ndax yàlla ndax gis nga ñeel la kii nga xam ne nii da nga koo kaweel sama kaw ay da nga koo teral ci sama kaw la in axartani ila yawmi alqiyaama soo ma yeexee ba bisu penc ci taxaw day la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila dana ngalab ngalab hanaka mooy li ñuy dugal ci weñ googu ñuy dugal ci gémmiñu fas gi ngalaab ko nga xam ne fu la neex wëlbati ko fa kon day doon naa ngalaab njabootam xanaa lu dul lu néew mi ngi noonu mbokk julit gis nañu ne yéeféer yu jëkk yi daawuñu deñ di layee seen yéeféer ga ñu sax wone ne yonent yi indi luñu leen ay lay yu leer yuy wone ne yàlla leen di yónni yàlla musul yónni benn yonent lu dul ay lay waaye ñoom luñ ca daan dolli soo bëggee ñu gëm la defal nangam defal nangam borom boobu nag dogaloon na suñu yonent yàlla muhammad waa makka lu mel noonu lañ ko doon wax boo paree nga xool saar bi ñuy jàng nga xool ci aaya juróom-ñeen fukk ba ba aaya juróom-ñeen fukk ak ñett ba bi ñuy wax naan lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al ardi yanbu'a ila akhiri ca yéefiri màkka it loolu lañu waxoon yeneen ci yàlla bi soo bëggee ñu gëm la màkka da nga fi ballal ay dex génni fi ay jardin ci raisin ki ay tendarma boo bëggee ñu gëm la màbbal asamaan suñu kaw boo bëggee ñu gëm la yéegal kaw asamaan te duñ la nangu ne yéeg nga lu dul nga indi ab téere ila axiri borom bi nag ne man day dara teewul ma yónni ci ñoom ay aaya lu dul yërmaande goo xam ne yërëm naa ko sa xeet ndax yàlla moo ñu boole yonent boo xam ne yónni wu ko illa rahmatan lil alamin mu ne xanaa gisoo ne ñii nga xam ne nii ñoo fi jiitu woon ba ma leen yónnee mboole seen ñoom ñépp dañoo bokk weddi lañ leen yónnee ñu alag leen suñu borom jox ñu ci benn preuve benn misaal muy waa samuud waa samuud ñëw nañ ci yonent yàlla saalix da ko saalix bala ñoo gëm ne yàlla moo la yónni montagne bi tim dëkk bi fexeel gileem génn ci yàlla dogal saalix ñaan yàlla gileem gu jigéen génn ci saalix na leen gileemug yàlla ngi ni fazaruha taakulu fi ardillah sant ñu leen ngeen xont ko bàyyi leen ko mu lekk ci suufu yàlla bi gannaaw ba it laha shirbun walakum shirbu yawmin ma'lum teen bi ci dëkk bi tey nañu root lépp jox ko mu naan su ko defee waa dëkk bi yépp daan ci mën a ratt meew bu subaa ngeen root naan loolu nekk ay kawteef yi tegaloo ci benn gileem waaye dañoo wëlbatiku dëkk bi yépp dëppoo ci ne nañ ko rey bañ ko reyee suñu borom alag leen mu ne nag yërmande boobu moo tax ba wuy siwuma la ci li ma leen di woo waaye bu dul woon loolu dana ko def borom boobu nag ni heure bu ñu indee kawtéef dañ koy indi ngir tiital doomu aadama yi ñu xam ne yàlla mi man lii ci àdduna mën na lu ko raw alaxira te it bokk léeg-léeg nga gis suñu borom indi tremblement de terre bu jege cent mille personnes de léegi suñu borom yàlla indi ay lakk sonal xatta les grandes puissances léegi suñu borom yàlla yëkkati géejam dóor ci doomu aadama yi comme ni xewal fële Indonésie ak yeneen ak yeneen borom boobu nag kon loolu lay wax ci doomu aadama yi te mbokk li gën a màgg bokk na ci nit ki di xool li yàlla subhanahu wa taala di def donte ne li ëpp ci doomu aadama yi tey amatuñu contact ak nature bi xalaatatuñu ci guddi wala ci bëccëg wala sedd wala tàngaay wala leneen li ñuy xalaat mooy li seen moroomu doomu aadama def à travers ci écran yi wala loo xam ne ci tali yeeg oto yeeg yu demee noonu la borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne yow yeneen ci yàlla bi xamal ne sa borom yàlla daa peeg doomu aadama yi na am mbokk yàlla moo peeg doomu aadama xoolal yow ci sa bopp yow doomu aadama yàlla moo la bindoon benn bis ci bis yi nga nekk ndox mu ñàkk solo mu lay wëlbati li nekk ci yow yépp ci des milliards de cellules moo ko ci def organiser ko ba nga xëy di mën a dégg di gis di dox say soxla moo la may ab xol may la xel may la loo xam ne da nga koy yége loolu yàlla moom war ngaa xam ne kon dara rëcc ko ci say mbir ahaata bi noos ahaata bi noos mooy xam ne lépp lu ñu nekkee ahaata bi naas ci kattanam mooy lu ko neex lay def ci ñoom kenn mënu ko rëcc looloo tax bés bu nekk dana la nelawal dana la yee su ko neexee feebar la feebaral la su ko neexee wéral la ca lu munta ñàkk buur nga général nga milliardaire nga lu mu yàgg-yàgg bis dana di si daray la te bu boobaa kenn du ci mën dara noonu mu leen payge ci dundit noonu la leen payge bu ñu deeyee doomu aadama explosé ci kaw avion ba doon poussière tasaaro amul lenn loo xam ne rëcc na ci yàlla ëllëg dana la dajal waat taxaw la taxawal la kon mbokk kooku mooy yàlla ahaata bi nas mu lay jural nga war koo yaakaar foo mën a toll ndax xam nga ne ni mi ngi lay surveiller borom kattan gi waaye jural la nga war koo ragal foo mën a toll xam ne mën ngaa nëbbu say xarit nëbbu say mbokk nëbbu say soxna bi nga nekkal waaye moom mun loo ko nëbbu inna rabbaka ahaata bi nas mbokk suñu borom mas na nattu nit ñi te mooy jël suñu yeneen sallallahu alayhi wa sallam ci benn guddi jële ko makka yóbbu ko palestine bi mu ko yóbboo palestine jële ko fa yóbbu ko ci asamaan yi juróom-ñaar wan ko fa ay kawtéef yenent bi ñëw nettali kawtéef yooyu loolee suñu borom nee na nekk na fitna ci nit ñi ndax yéeféer yu bari ñoom keroog la seen yéeféer gën a dëgër nag ñu ne nag amatuñu sikk sàkkani muhammad mi ab dof la rek ñun bu ñu jógee Makka pour dem Palestine au minimum daan def un mois ci yoon bi retour un mois muy deux mois moom nee ni biig ci guddi dem na Palestine dellusiwaat na kii moom kon ay mbiram léegi leer na ba yenn julit yi doon hésité sax dañ gëm ak duñ gëm ñu bari dellu gannaaw kon loolu la suñu borom wax ni fitne la ñeel nit ñi donte ni ne mbokk ñooñu ko weddi dañ ko weddi ci seen xel te bàyyi wuñu kattanug yàlla jalla waala mbokk tey jii yéen a ngi gis seen mbokk yi fi jóge dem makka ngi noonu tey avion bi bu décollé tey une heure du matin huit heures ah sa mbokk ba nekk makka mën na laa téléphoné ne la yegg si nañ ci jàmm am déet ngi noonu suñu diggante ak makka nekk plus de sept mille kilomètres ca jamono bi ñoom di weddi diggante makka ak palestine six cent kilomètres kese la loole nga xam ne tey bu doon benn guddee suñu avion de ligne yi rek mën nañ ko def dix aller retour ni nga noonu wala lu ëpp loolu sax kon loolu ñoom weddi nañ loo xam ne seen xam-xam yeggu fa amma jurit moom day gëm ni borom yàlla mi borom kattan gi lu mu wax rek am na bokk na ci loolu shajaratu zaqum shajara mal'una fi alquran mi shajaratu zaqum bokk na bi suñu yonente alayhi salaam ni safara am na benn garab mu ne jeex na nag waa déggeen muhammad waay safara lu ko jege mu lakk ko moom mu ne biir sawara ak garab dafay sax mi ngi noonu suñu borom mu ne innaha shajaratun taxruju fi asli aljahim tal'uha ka annahu ru'usu shayatin garab la guy génn ci biir jahim meññatam ba dafa mel ni ay bopp shaytan borom bi subhanahu wa taala it mu ne bu duggee ca biir biir ya yaxli fi lbutun ka xali lxamim mbokk zaqum boobu yonent bi salallahu alayhi wa sallam daana wax ni garab la goo xam ni suñu borom wax na ci alquran nee na meññetam ba dafa mel na ay bopp cheytaan cheytaane mooy li nit di gis di jommi tàngoor ba nee na bu duggee ci biir day bax waaye yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na bu doon benn qatra min zaqum ay suñu borom dafa jëloon benn toq ci garabu zaqum mu wàcce ko ci kaw suuf mboolem dund gi nekk ca penko sowu toq ba bu dana ko yàq ci xet gu bon ga nga xam ne moom la àndal waaw gaa yi koo xam ne nag loolu ngay naan guddi di ko naan bëccëg nag yal na yàlla musul ñu ci wala borom bi wax shadarata mal'una fi alquran waaye suñu borom nee na lii lépp bi ma ko waxee daf leen a yokk ak bew déjà weddi nañu ko ndax seen xel jàpp nañ loolu munta nekk ñu ngi noonu donte ne saay saay ba mag ba di abu jahal bokk na la ñuy nettali dem na defar ay bonbon bonbon yoo xam ni da ko defar ay tandarma def ci ay graisse defar ko ba mu neex mu bàyyi ba toog ci biir kaaba gi ak yéefiri quraysh yi mu ne booyam bi dama la indi ma sama zaquum bi biñ ñëwee gaayu ko dama jox la benn bonbon nga lekk mu ne lii mooy zaquum yonent bi nee na ah wala boog muhammad nee na bu ñu dee lii la ñuy lekk gaa yi naa lii day neex na gis ngeen loolu mooy li sunu borom ne da leen di dolli tuxyaanan kabira waaye amma julit heure bu déggee mbugul yàlla day tiit ñaan yàlla musal ko ci yàlla na yàlla musal ñu ci mbugalam suñu borom bàyyi loolu indi nag la nga xam ne moo tax li ëpp ci doomu aadama yi jàdd yoonu yàlla suñu borom da koo neex benn bis mu ne dana bind benn bindaafon bu ñuy wax nit fekk nit amagul loolu it ngeen bàyyi xel seen doom yi jàng ci suñu lekkool bi nga xam ne ba tey xalaatu yéeféer yi moo cay dox ba tey li ñuy jàngal suñu doom yi ca lycée moo di ne doomu aadama mi ngi jóge ci golo waaye mbokk golo mi ngi fi woon naka jekk suñu borom xëy ne day bind nit bi mu bindee suñu bam aadama mi ngi ko jële ci ban defar ko mu nekk benn genre statue boo xam ne am na presque autour de trente mètres defar ko daa di ci ëf ak ruuxam daa di ne malaaka yi sujuutal leen ko malaaka yépp sujuutal aadama alayhi salaam iblis booba moom jinne la waaye yàlla bayan na ko mu am kattan di yéeg ci kaw asamaan yi di ànd ak malaaka yi moom mu toog ba ñu sujud suñu borom nettali nañu ci juróom ñaari place ci alquran la nga xam ne mooy jokkalante bi mu doon def ak iblis waaye fii moom daanika dafa commencé rek wax iblis lay yëm indi ba bañu sujuutal aadama ci ndigalu yàlla lay bi mu ko wax mooy yàlla ndax man danaa sujuutal koo xam ne ban nga ko binde soo delloo ci beneen aaya danaan xalaqtahu min tiin xalaqtani min naar wa xalaqtahu min tiin man safara nga ma binde safara mooy li jóg di tàkk di jëm kaw kii ban kese la bu dee sujud am na kay moo ma war a sujuutal ndax danaa sujuutal koo bind ci ban te loolu mbokk mooy premier raciste képp koo gis muy xeeb moroomam ci cosaanam naar bi xeeb ko ñuul ci tubaab bi xeeb naar bi tukulóor bi xeeb bambara bambara xeeb séeréer séeréer xeeb njaago yooyu yépp mbokk képp koo xam ne yaa ngi xeeb doomu aadama la nga koy xeebe mooy cosaanam xamal ne yaa ngi taxaw place cheytaani place iblis ndax danaa sujuutal koo bind ci ban suñu borom yàlla subhanahu wa taala ci yeneen aaya wax nañu ne rëbb na ko génn ko ci yërmandeem waaye mu ne ay yàlla gis nga kii nga xam ne da nga koo jël teg ko sama kaw te it yàlla muy teral ku ko neex ci ay jaamam yal nañu boole ca jaamam ya mu teral kii nga teral ci sama kaw soo ma bàyyee ma dund ba yowmal qiyaama mboolem lu mu jur danaa leen ngalab tabbal ci biir sawara te mbokk loolu suñu borom nee na seytaane da koo jortoon waaye ndekete yóote dana ci réussir laqad saddaqa alayhim iblisu zanna iblis jortoon na rek ba muy wax loolu waaye mbokk réussir na ca yonent bi alayhi salaam nee na junni nit yu aadama jur 999 ya iblis dana leen dévier ca baat bi mu utilisé mooy danaa leen ngala xoolal borom charit bi bu la rombee buum yooyu muy yor nga gis dafa am benn weñ goo xam ne moom la jël dugal ci biiru fas bi ci gémmiñu fas bi looloo tax ba bu ko tourné droite droite gauche gauche naka noonu it ñiy jàdd yoonu siratal mustaqim cheytaane moo leen di wëlbati nu mu ko neexe dugal leen ci shirk dugal leen ci bida dugal leen ci bakkaar yu mag yi dugal leen ci ak noono lu nu mu dugal leen ca nee na dinaa leen ngalaab yóbbu lu dul lu néew ca la nga xam ne mooy say jaam lii mbokk dañuy gis nañu xool nag suñu borom lu mu koy tontu ci loolu
وما يعلم الشيطان
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ni qala zhab mu ne ko demal shaytan faman tabi'aka minhum képp ku la topp ci ñoom fa inna jahannama jazaa'ukum sawara day mooy doon seen pay jazaa'an mawfuura doon pay boo xam ne bu ñuy matal sëkk la wastafziz man istata man istata'ta minhum xiirtalal ku la neex ci ñoom bi sawtika ca sa kaddu ga wa ajlib alayhim yëkkatil jëmi ci ñoom bi xaylika ci sa fas yi wa rajlika ak sa góor yay dox ak tànk wa sharikuhum fi l amwal demal bokk ak ñoom ca alal ja wal awlaadi ak ca doom ya waiduhum na nga leen dikk wa ma yaiduhum sheytaanu illa gurura doonte ne sheytaanu du leen dikk lu dul ay wor kese inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan samay jaam nag moom doo am ci ñoom benn kattan wa kafa bi rabbika wakiila sa borom yàlla doy na rek ci ku ñuy sukkandikoo rabbukum allazi yusji lakum alfulka fi lbahr seen borom bi nga xam ne moo leen di jëñal gaal ya ca biir géej ga di tabtahu min fadli ngir ngeen mën a sàkku ci ay ngëneelam innahu kaana bikum rahima moom day nekk na ci yéen koo xam ne ku am yërmande la mi ngi noonu ku leen di yërëm la mbokku cheytaan yi bàkku na ci kanamu borom bi suñu borom ne ko iblis demal ku la topp ci samay jaam day sawara mooy seen wàccuwaay doon pay goo xam ne pay gu ñu matal sëkk la kon mbokk kan mooy dem sawara mooy koo xam ne dafa topp cheytaane cheytaane mooy kan mooy kiy diglu lu bon di teru lu baax képp ku ko topp kooku moom muy dem sawara sawara boobee suñu borom nee na su ngeen fa demee day dana doon loo xam ni pay la gu mat sëkk ca mbokk yal na yàlla musal ñu ci jahannam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na safara bi doomu aadama yi xam ci kaw suuf benn cër la ci juróom ñaar fukki cër ya nekk ca safara saxaaba yi na ko yim yàlla yoon safara sa àdduna bi rek doyoon na mu ne déedéet benn cër la ci juróom ñaar fukki cër ya ca suñu borom yàlla nee na dinaa feesal sawara ci ay nit ak i jinne mboola seen gallawaay mbokk nañ ragal sawara nañ ñaan yàlla musal ñu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ci bim ñuy jàngal julli bokk na ci yow jullit boo taaya bu julli ci yonente bi alayhi salaam la ngay jëkk a wax allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabr wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati masihi dajjal mooy ñaan yàlla musal la ci jahannam jahannama bu jajjee yowmal qiyaama mboolem yonent yi mboole seen dañuy sukk ibrahima ak muusa kum mën a doon ñépp la ñuy wax mooy nafsi nafsi te yàlla sama bakkan sama bakkan ngir mucc ci sawara doonte ni bi ñu yàlla wàccee lii ab téeréem téere boobu mu wax ci waxam ju dul toxo du changé ca lu dul lii duñ ko fekk yowmal qiyaama ñi miin ñi miin réseaux sociaux yi temps yi am na benn vidéo buñ ci tasaare benn waay boo xam ni wax na benn sëriñ bu mag ci sëriñu Sénégal yi nee na dafa toog ak mbooloom ba mujj mu ne temps yi daal moom am naa tuuti jafe-jafe gaa yi na ko loolu lu mu doon mu ne safara daal moo ma sonal safara daal mooy ñëw ci man rek naan ma yow li ma yàlla dig xam naa ne sa yoon bii ngay woote man duma fees te yàlla diggoon na dana ma feesal waaye sa woote bii xam naa ne duma fees mën a ko deet toogal safara xam nga lu mu mën a doon man mii day am naa kenn ci samay taalibe am na lu ma ko jagleel loolu ma ko jagleel képp ku ko weddi ñoom ñépp danaa leen dajale sarcele ba nga fees dell mbokk loolu waxewuñ ko indonésie waxewuñ ko pologne sénégal gii lañ koy waxe ñi ngi koy wax nit ñaa ngi koy dégg ñu wax joo xam ne weddina alquran weddina sunna ah kenn xamul la ca nekk cay fitna waaye mbokk déedéet sawara suñu borom nee na dana ko feesal lam koy feesal wax nañu ko képp ku topp iblis sawara mooy sa wàccuwaay mu ne ko nag sawara demal wastanzis mooy jañal buuxal mooy xiirtalal ku la koo mën ci sa kaddu gi ba ko kaddu cheytaan doonte ne ni la ca jiitu mooy bépp woote buy woote ci réer rek kaddu cheytaan la bépp woote buy woote ci shirk woote ci bidaa woote ci masiya kaddu cheytaan la allahuma lu ëppoon ci mufassirun yu jëkk ya demal ci tafsir mujahid wala nga dem ci sahabi bu mel ni abdullah ibn masud ñoom ñépp lañ ko doon firi mooy ay way ak musique mbokk way ak musique mooy kaddu cheytaan mbon boo ko dajaloo woon muy oto moteur ba moom mooy musique mi nga noonu musique mooy woote ci mbon ngalawaay ku ci duggagul woon bu mu ci dugg yéen ñi ci dugg dañ leen di nax ku leen ko taaralal da leen di nax mbokk musique baaxul yow musicien bul ñaan yàlla mukk dee ci jàpp naa kenn ci yéen bëggul keroog bañ koy rob orchestre yi ñëw ca bàmmeel ba ku nekk di tëgg ak fecc kon xam ngeen ne baaxut kon mbokk mi ngi noonu baaxut kaddug seytaane la fan kay musique boo demee fekk fa góor ak jigéen yu jaamburu jaxasoo am déet soo demee fekk fa sàngara bu ñuy naan soo demee njaaloo baa nga fa kon kaddug seytaane la muy musique ak lépp lu jëm ci ay way xëccal ku la neex ci sa kaddu gi gannaaw bi it jëfandikool doole mooy borom fas yi ak borom kattan yi ca loolu moo doon doole bi alxuraan di wàcc ca it mbokk julit da ngay gis ne julit ñu bari xeex nañu leen ci seen diine ba ña ca seen ngëm woyef génn ci diine ji yàlla yàlla musal ñu ci yéeféer yu bari tamit ragal kattan buy dal seen kaw tee na leen dugg ci lislaam jàpp naa ne mag ñi ñoom xam nañu li xewoon bërki démboo jaay ci bosnie ak ërsëg li xewoon ci ay albani da ngeen di gis fenn ci ay tchétchéni da ngay gis ni côté ay albani wala ay bosnie am na ay temps dans les années quatre vingt bépp xale bu ñu gis nga yor benn feuille alquran égal dix ans de prison képp kuñ gis ngay woote ci diine moom égal prison à vie boo amul chance ñu rey la gis na génocide bi ñu fa defoon rey fa kenn xamul des centaines et des centaines de milliers ci ay musulmans dara taxul ñu rey leen serbi rey leen lu dul li ñuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah loolu nag bokk nattu la bu yàlla di nattoo ay jaamam waaye ngal la waay julit ñaanal yàlla aasiya foo mën a toll waaye it buy nattu yàlla ñëwoon ba tey nit ñi jóg ak seeni arme ne da ngeen di génn ci diine et waaye préféreel dee yàlla sa ngëm plutôt que di topp ay yéeféer ca menace yi lay def jëlal ku la neex ci sa ñiy war ak ñiy dox gannaaw ba it seytaane dig leen ca mbokk wala boog suñu borom ne ko bokkal ak ñoom alal ji ak doom yi bokk gi muy bokk ak alal ji mooy xiirtal doomu aadama yi seen alal au lieu ñu jaamu ca yàlla ñu cay muy yàlla lu ëpp ci doomu aadama yi seen alal dañ cay moye yàlla te bépp alal boo xam ne defoo ko fa neex yàlla mbokk loolu xamal ni cërub seytaane bokk na ca bokk na ca lam cay dugal ci riba lam cay dugal ci lépp loo xam ne lu lewul la bu dee ca doom yaa itamit bokk na ca la nga xamee ni ni mooy la muy jël aji jur daa di leen bëgguloo njaboot ba njaboot googee nekk ci mooy yàlla ñu ànd ak ñoom ca mooy yàlla yooyee loolu kon yaag cheytaane tey yéen a bokk njaboot ci donte ne it yeneen ci bàyyi salaam daa dañuy wax ni amul kenn kuy lekk ci waxo bismillah ndudul yaag cheytaane bokk lekk gi gannaaw ba it képp kuy ànd ak soxnaam day wax bismillah bu dul loolu dañ cee ànd ak cheytaan bokk na ci loolu itamit xiirtal ga muy xiirtal nit ñi ci njaaloo goo xam ne dañ fi indi ay doom yoo xam ne di doomu yoon yi yépp mbokk bokk na ci loo xam ne cheytaane da cay doon di bokk ak doomu aadama yi la leen yàlla wërsëgal amma nag li gën a matale mooy li borom bi ne waiduhum na nga leen dikk dig yooyu mooy lan masalan da ngay gis yéeféer yi lim leen wax mooy nit ki benn dund am soo dee si terminé ñii naan dee dekki am nañu ay dof lañu rek waaye bul gëm loolu boo dee jeex na mu ñëw ci ñi nga xam ne dañoo am diine commencé ci yahudiya nasaraani chrétien yi loola neex defal soo soo yomal qiyaama suñ diw dana rek la say mbir jeex na fexeel ba yow bis boo dee rek dénkaanil nañ la suuli Tambacounda buñ la suulee Tambacounda rek jeex na àddina nga jëm ñu ngi noonu ba bu yàggul dara li ma leen doon wax fii bu yàggul dara benn kilifa bu mag day ni fii Sénégal gépp xam ko semaine passée kilifa yu bari daje fa kenn ca kilifa yee nee na seen xel dal ndax dëkk biñ koy yóbbu nar ko faa suuli malaaka yi laaj nit ci bàmmeel xamuñu fu dëkk ba féete ndax yàlla mosu leen faa yónni yéen ñiy topp presse bi xam ngeen li may wax dëgg la semaine passée rek kilifa gu mag ci Sénégal ñu ngi noonu loolu nag mbokk mooy dig yi cheytaan yi di dig doomu aadama yi su ko defee seen xel day dal seen xel day dal ñetti leen naa leen fii kenn ci ki nekkoon ci pilier jàkka ji yal na ko yàlla yërëm El Hadji Fajur Gueye nee na dem naa fekk sama benn collègue inspecteur ci benn dëkk ci dëkk yi ma nga nekk lu ko neex xale bu jigéen bi mu fanaanoo tey di bokk keneen mu ne ko yow diw ragalal yàlla yaa ngi bàyyi say soxna Dakar ñëw di def fii li ngay def mu ne ko hé yéen amu leen lu ngeen gëm yéen ibadu yi gëmu leen dara man na gëm naa ne sëñ diw su ma dee mu tabbal ma aljanna lu ma neex def jeex na mbokk loolu mooy dig yi suñu borom ne waiduhum waaye nag wa ma yaiduhum cheytaan illa gurura mbokk cheytaane diggu leen lu dul ay wor képp ku la mën a jàngal ku la mën a dig ci ne doomu aadama ëllëg mën naa texe ca dul ne dafa tënku ci alxuraan ak sunna wallaay dalay nax nañ la suul biir kaaba ga na doon bokkal ci bani hashim lu la neex defal waaye ba ngay dee deeyaale woo tawxid deeyaawaloo sax ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu la waaye mën a dig dalay nax wa ma yaiduhum cheytaan illa gurura waaye suñu borom yàlla ne yow cheytaane xamal ne nag samay jaam inna ibadi gaa yi kan mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy ibadu rahman mi ngi noonu ibadu rahman inna ibadi mooy ñan mooy ñoo xam ne dañoo am gëm gu sell jëf-jëf yu sell al imanu saxix wal amalu salix ñooy allazina amanu wa amilu salihat ñii ñooy ibadu rahman inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jaam moom doo am ci ñoom benn lay doo leen mën a fexe ba sa nax yi ñu tabbi ci abadan yal na yàlla boolem ci ay jaamam moo tax suñu borom ne nag doy na sa borom ci koy wakkirloo galla way julit yaakaaral yàlla sukkandikul ci yàlla kese sa wax génn ci yàlla ak doy loolu yàlla jalla wa ala kese booy woowal yàlla booy waat waatal ci yàlla booy sukkandiku sukkandil ci yàlla ndax suñu borom mu ne kafa yàlla doy na alaysa allahu bi kaafin abda ndax yàlla mënul doy ab jaamam ah kay kon yàlla doy na looloo tax ba julit bi xam heure bu génn jëm ci lu mu mën a doon la muy wax mooy bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah maa ngi dem ci turu yàlla wékku naa ci yàlla kenn amul pexe ak kàttan ku dul yàlla wa kafa billahi wakila kan mooy yàlla yàlla mu ne moo ñuy jël suñu gaal yi di ñu ko jegal geñal ci biir géej jamono bi alquran di wàcc bokk ne xéewal gi gënoon rëy ku doomu aadama yi daan def échange mooy li ñu tudde bateau à voile yi nga xam ni da nga koy dugal yaag say marchandise ak say passager daal di yëkkati voile bi yàlla indi ngelawam mu jële la indonésie ba yóbbu la amérique loole ci ay xéewalam moo tax mu ne gis ngeen de yàlla ko am yërmande la ci yéen yàlla na yàlla yërëm ñu fi dunia wal axira
وإذا مسكم الضر في البحر وإذا سموا الضوء في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أم يرسل عليكم حاصبا أم يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا barakallahu fikum suñu borom mu ni wa idha massakum durru fil bahr heure bu leen laalee lor ca géej ga dalla man tad'una illa iyyah dana sanku lépp lu ngeen di woo lu dul moom kese ay yàlla falamma najjaakum ila al bar bu leen musalee jëme ca jiiri ja nag bar jiiri mooy lépp lu dul géej arattum ngeen daaju du mooyu wa kaana al insanu kafura ca nekk na doomu aadama aji kuy sul njekk muy aji weddikat afa amintum an yaxsifa bikum janib al bar ama ndax am ngeen kóolute ci yàlla xar ci yéen la nga xam ne mooy benn côté benn wàll ci suuf sa aw yursila alaykum xaasiba wala mu yónni ci yéen ngelaw bu ànd ak ay xeer summa la tajidu lakum wakila te bu boobaa du ngeen am ñeel leen ku ngeen di sukkandiku am amintum an yuidakum fihi taratan uxra wala boog am ngeen kuulute ci yàlla delloowaat leen ci géej ga yoon beneen fa yursil alaykum qaasifan min arriix mu daal di yónni ci yéen qaasif mooy ngelaw loo xam ne lum ñëw xar ko jàll qaasifan aji luy rajaxe min arriix ci ngelaw fa yuxriqakum bima kafartum mu daal di leen di labal ca la ngeen weddee woon summa la tajidu lakum alayna bihi tabia gannaaw bu du nekk ñeel leen ci ñun kenn koo xam ne moo ñuy topp ca loole wa laqad karramna bani aadam ñun yàlla day teral nañ doomu aadama yi wa xamalnaahum fi lbarri walbahr yenu nañ leen ca jéeri ja yenu leen ca géej ga wa razaqnaahum min atayibat daa di leen di wërsëgal ca wërsëg yu teey ya وفضلناهم على كثير ممن ممن خلقنا تفضيلا غنا بنو گنلé لén ca lu bari te ñi nga xam ne bind nañ ko la nga xam ne mooy ak ngënale ñi ngi noonu mbokk julita doomu aadama ya nga xam ne ñoo jiitu woon ci kéeféer ñoom suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na maa leen doon xéewalal bu ko defee xéewal yooyu suñ ca nekkee ña nga ànd ak seen bokkaale ya ci biir xéewalu yàlla waaye buñ mësaan dem ba digg géej yàlla yëngal géejam vague yi jóg tiim leen day daa di réer képp koo xam ne dañ koy woo ca du yàlla ca loolu mbokk moo nekkoon aada yéeféer yu jëkk ya amma lenn ci suñuy maam ci réew mi nee na kéefér ga woon day moo tane diine tey ji ndax tey ñiy woote woo diine dañuy bokkaale ci jamonoy xéewal jamono bu natt ñëwee it ñu sax ci bokkaale yi wallahi mbokk da ngay gis ñoo xam ni ñuy nettali ay accident yu ñu fekkee ña nga xam ne ñoo nekk ci accident ba ñi ngi woo keneen ku dul yàlla keneen ku dul yàlla ba seen roox teqali ko ak seen bakkan loolu témoignage yu dul jeex wallahi am na ci loolu mbokk da ngay gis ni musiba la boo xam ne boo demoon lu ñuy tuddee tafsiru manar waa ji nga xam ne muhammadul abdu boobu dana cay nettali benn góorug arab dafa nekkoon ci benn bateau bateau bi gaa yaa ngi jëm di aju ji mag ñu dem ba ci digg géej gi rek suñu borom yëngal géej gi bateau bi commencé jaññ jaññ di nara labal ñu ci nekk ñu bari ci ñoom jóg ñi naan yaa cheikh diw yaa sëriñ diw yaa cheikh diw yaa sëriñ diw benn góorug arab daal di jóg taxaw daal dina ya allah labalal bato bi yépp ñoom ñépp ñu tiit gestu xool ko mu ne wallahi yéeféri arab yu jëkk yi ñoo leen gën téeméeri yoon mi nga noonu ndax suñu borom nee na ñoom bu ma saan ñàng ba ñàng ñu woo yàlla kese yéen nan ngeen ñu nekk ay julit naan da ngeen di aji ji ba pare seen gaal ji lépp ngeen di woo keneen ku dul yàlla ca la waa gaal gépp tiite delloo gannaaw commencé ya allah ya allah yàlla musal gaal ga mu dem téeri ji lii mbokk kon mi ngi noonu amma julit ba mu xel moom jafe-jafe ak coono ak bànneex la yemale du woo kudul yàlla jalla waala borom boobu nag nee na suñuy woo yàlla kese su leen yàlla musalee buñ demee ci jiiri ja daa di wane gannaaw ay budul woon ak sëñ diw ay budul woon ak li ma takk ay budul woon ak nangam nangam borom bi ne waaw ndax jàpp ngeen ne mucc ngeen yàlla ci kaw jiiri ji ndax yàlla amul kattan xar suuf si dugal leen ci ah kay bés bu ne mu def ko li nga noonu ay tigi en 2010 def na ko fa bu mat plus de 100 000 personnes moo japon gee ñaata yoon iran gee ñaata yoon ak bari ci ay dëkk yoo xam ne nii ay tremblement de terre yoo xam ne nii lam fay rey kenn xamul nu mu toll mu ne wala boog ma yónne leen ngelaw boo xam ne dana ànd ak xaasib mooy ay xeer yoo xam ne nii xeer yu ndaw la ci taray mi ngi noonu ca loolu da ngay gis ni moom la alaga woon xawmu luut alaga na ci xawmu xawmu huut mi ngi noonu gannaaw ba suñu borom mu ne ci bu booba amul kenn ku ngeen di mën a sukkandiku ku dul yàlla jalla waala mbokk mbugalu yàlla kenn mënu koo fekk ku dul yàlla mu ne wala bokk ma delloowaat leen ci géej ga te mbokk yàlla moo am kattan ci lu ko neex ci doomu aadama yi sa programme yàlla moo ko moom fu ko neex mën na la fa yóbbu ndax xamu leen xamu leen ne mën naa leen delloo ci géej gi boole leen ak ngelaw boo xam ne bu ñëwee dana tas lépp muy xaasif ma labal leen ca la ngeen nekke ca bu boobaa du ngeen am kenn koo xamee ni nii dana mën dana ma topp di ma laaj lu tax nga def lii nga wala defoo lii ñu ngi noonu borom bi nag di wax lim defal doomu aadama ak ñi doomu aadama baa dawloo bokk doomu aadama tuuti xel boo ko amee wallahi wuroo bokkaale sa borom ak kenn dama jëlali bind gim li bind waaye borom bi mu ne man maa teral doomu aadama ma xool leen ñaate million d'espèces ñoo nekk ci kaw suuf yow doomu aadama la yàlla may ngay woddu fas yaa ngi gaynde yaa ngi ñay yaa ngi ni yow doomu aadama yàlla may na la da ngay xool bàyyi ma yu bari dañuy jël seen gémmiñ di dëpp ci ndox mi pour naan di dëpp ci lekk gi pour lekk yow yàlla may la loxo da ngay dànk nga daal di lekk yàlla subhanahu wa taala may la nga taxaw ak taxawaay yàlla may la xel nga man di organiser di defar ay dëkk di defar lu nekk ba defar sax li ñuy tudd ay zoo bu la neexee jël ay àll dajale fa ay gayndeeg ñee yépp tëj leen ci sa ordre borom bi dolli ci ne maa leen yenu ci jiiri ci ca loolee da ngay gis tàggatal ñu fas fas bi nangul la lool ba ba demee ci histoire dañuy gis ana ñaata fas ñoo sacrifié seen bakkan ngir sauver seen boroom yàlla tàggatal la la nga xam ne nii mooy mbaam yeeg nag yeeg lu nekk ak gilim yi nga ci mën a war fu la neex nga dem ci biir géej gi yàlla tàggatal la géej tàggatal la bant yi nga mën cee jël des tonnes et des tonnes tey doomu aadama li muy am ci ay pétrolier am ci ay porte avions daanaka ay dëkk yuy tuxu ci biir géej gi dem la loolee fa la xel tolloon donte ne jàng nañ suratu naxli biñ jàll borom bi ne wa yaxluqu ma la taalamuun mooy bi mu ñu waxee gaal yi wax ñu daaba yi nee na maa ngi bind lu ngeen xamul ca loolee tey doomu aadama yàlla waxoon nañu moo ñu yéenu ci jéeri yéenu ci géej gi tey yàlla yéenu ñu ci biir jaww ji yi ngi noonu yàlla yéenu ñu ci biir jaww ji doomu aadama mën na dajale tey avion yi ñu mujj a génn ay A320 yi plus de 800 personnes ak seeni bagage avion bi mën a jóg ak ñoom wàcc ak ñoom ci ay 10 000 kilomètres loolee mbokk da ngay gis xiiwal gu yàlla defal doomu aadama loolee lan moo nekkoon njëriñam doomu aadama yi delloo njukkal boroomam suñu borom mu ne maa ci dolli wërsëgal leen ci yu tey yu ngeen di lekke doomu aadama suñu borom def ko mu am lu muy mën a xéewroo ci kaw suuf kenn xamu nu ma toll bu dee wàllu lekk rek gaynde yaa ngi ne di dee ak xiif ca ñax maa ngi leen di wër gauche droite waaye duñu lekk ñax nga dem fële gis la nga xam ne mooy biif lii nagu àll yi ñoom it ñi ngi dee ak xiif ci kéwél yaak yépp ngi leen dorom waaye ñoom duñu lekk yàpp amma yow doomu aadama yàlla may la nga mën a lekk lu nekk li tubaab yi tudde omnivore doomu aadama day lekk pepp day lekk ñax day lekk caamin yi dañ ma laaj du ñax xam ngeen yéen a gën a bëgg salaat mi ngi noonu day lekk yàpp day lekk lu nekk doomu aadama lu mën na ko lekk wa razaqakum min at-tayyibat daal di leen di wërsëgal ci tey waaye suñu borom mu ne ma gënale leen ci lu bari ci li ma bind ak gënale te mbokku alam yi nga xam ne dañoo am yëg-yëg ñeent lañu muy malaaka yi nit ñi jinne yi bàyyuma yi loolu moo taxit suñu borom ne gënale naa leen ci li ëpp te mooy mboolem bàyyuma yi nit ñi ñoo leen gën mboolem jinne yi nit ñi ñoo leen gën amma malaaka yi ñoo gën nit ñi loole buñ koy wax ci mbooloo lañ koy wax malaaka yi gën nit ñi am na ci yenn nit yoo xam ne ñoo gën malaaka yi te mooy anbiya yi ak ñu yàlla yi kat ci ay grade gannaaw ba it nit ñooñu ñu ne ñoo gën jinne yi ak bàyyuma yi am na ci nit ñoo xam ne ñoo yiis jinne yi ñoo yiis bàyyuma yi am déet wallahi suñu borom subhanahu wa taala nee na ulaika kal an'am bal hum abdal mooy am na ci nit ñoo xam ne goloo leen gën mbotta leen gën mbuuta leen gën lépp leen gën mi ngi noonu waaye nag bu ñuy xool ci wàllu mbooloo moom ni mu demee mooy bàyyi may jinne yi ñoo ñoo leen gën jinne yi nit ñi ñoo leen gën mbooloom malaaka yi ñoo gën mbooloom nit ñi lii mbokk mooy ngëni li nga xam ne suñu borom yàlla defal nañu ko lan la doon jëriñ moo ñu jaamu ko moom kese ñoo ni ci hadisul qudsi yonente bi alayhi salaam ne maag nit ñi day ëllëg daañu am daje bu rëy lu waral loolu mooy man rek may bind ñu jaamu keneen man rek may wërsëgal ñu sant keneen ca loolu mbokk da ngay gis ñun day fekk nañ ci loo xam ne sunuy maam yi xamuñu ko woon booy xool déglu ni nit ñi waxe tey wallahi yéen ñi doon dund dans les années soixante-dix xam ngeen ne amul woon diw na nga def sant sëñ diw bu wér yàlla na la sëñ diw defal nangam yàlla na la defal nangam yàlla defatul dara kenn santatul yàlla benn xiiwal jóglatul yàlla alaxira kenn yaakaaratu fa yàlla loolee mbokk da ngay gis ne ay njuumte la yu rëy yoo xam ne ngalla waay yow ma ca duggagul woon bu ca dugg waaye it képp koo gis muy waxe noonu ca nga mën koo laayi biir rawatina seen njaboot yi fexe leen delloo leen ci seen boroom jaam bi yàlla rek ko bind yàlla rek koy wërsëgal yàlla moo koy rey ëllëg ki si biir xéewal gum nar a am ci yàlla kese lay jóge yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy teral adduna ak alaxira yàlla nañu yàlla boole ci ñi ko wéetal duñ ko bokkaale ak dara yàlla na yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu àjjana àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw alhamdulilah xam na lu jiitu rek ñu xam ne suñu bilal caam yàlla da ko boole ci ñi nga xam ne dañoo nekk ci aj yàlla na yàlla nangul ko ca nangul mboolem ujaaj ji mu àndal ñi nga amit suñu mbokk ñoom sëriñ ñi seen benn soxna boo xam ni dafa faatu ci jàkk ji lañ ko jële sànq ci 4 heures yal na yàlla teeroo ko njëggal ak yërmande yal na yàlla defal ko àjjana mu nekk wàccuwaayam ñu ngi noonu ñi yor wàllu trésorerie bi it ñu ngi fàttali na àllarba bii di ñëw mbokk yi bañ a fàtte loolu ñu doon barkeeloo ci jàkka ji mbokk bi bind ab laaj mu ne waaw yenent bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ñeent yi du ñu doy ci tabaski mooy boo xamee ni nii feebar na ba ñépp xam ne dafa feebar ak boo xam ne dafa pat ba ku ko gis xam ne dafa pat ak boo xamee ne nii dafa lafañ ba ku ko gis xam ne xar mi moom dafa lafañ ak boo xam ne dafa loof ba ku ko gis xam ne kii amul benn yàpp ay der kese la lu tax nag borom xam-xam yi di ci boole ay yeneen yu dul yi wala kulli xaal lii la yonente bi alayhi salaam ne lii moom la tujzi mooy lii moom du mat tabaski bu dee dafa bokk ci ñeenti yi borom xam-xam yeneen yi dañu def qiyaas qiyaas mooy lan moo dina ne tabaski dafa war a doon lu mat ñu ne li tax yonente bi alayhi salaam di wax lii baaxul lii baaxul parce que dafa manqué ñu jëlit lépp lu manqué daal di koy boole ci loolu moo tax ñeen ñi naan loo xam ne nii ay noppam yépp dañoo bokk dagg wala boog geen ba dafa dagg complètement yooyu ay mbir la yoo xam ne nii it borom xam-xam yi wax nañ ko ca waaye la gën a jub la gën a jub nekkul ci ne tabaskee ko baaxul mooy dañ naan tabaskee ko sip nañ ko mooy boo amee leneen bul tabaskee lu mel noonu waaye bu dul ñeenti yi yonente bi alei salatu wasalaam yépp xar mu ci mucc xar moomu mat na tabaski mu des nag bañu sopp ak bañu soppul loolu la ñuy mën a wax ci loolu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah waa ji nga xam ne day def bakkaar gannaaw bu mu tëb ko waaye après mu delluwaat kooku luñ koy laaye biir liñ koy laaye biir mu dee tuub gama tuub sincère na dañ naan ko noonu la heure bu la seytaane ak sa bakkan nattoo nga def bakkaar nga la way tuubal tuub gu sell tant que tuub gi mi ngi sell sa xol yàlla nan yàlla baal na la baal na la bakkaar ba la nga xamee ne daal moom la yàlla dul la baal mooy tuub goo xam ne ca làmmiñ ba la yem waaye daal bu dee wóor na ne li nga def moom toroxal nga ci kanamu yàlla lii de yàlla nattu ndam nattu ñëw na ba dal na ma yàlla dogul naa dootuma ko defeti boo defoon ci suba ga nga defaat koy tuubaatal yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom nee na mooy attawaab attawaab mooy du dañ di nangu ab tuub ba sax ñëw na ci hadis al qudsi suñu borom ne yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam sama jaam day def na bakkaar xam na may jéggale mu daal di jéggalu ma baal ko mu defaat xam ne may jéggale mu jéggale ma baal ko sama jaam day na def lu ko neex baal naa ko loolee la ko borom xam-xam yi di firi mooy tant que jaam bi mi ngi tuub tuub gu sell digganteem ak boroomam su boobaa yàlla baal na ko tuub gu sell nag bokkul ne yàlla naa njaawloo ci tuub tuub gu sell naa lekk riba tuub tuub gu sell tuub gu sell mi nga am gannaaw ba bakkaar bi ñëwee yàlla yëg sa xol ne lii day bu dimb doon na tey doo ko def muy benn te yëg dogu nga ne dootoo ko defati muy ñaar ñaar yi xol bu mu dajee yàlla bal la bakkaar ba ko jiitu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam mu ne ki def opération di sangu janaaba ça dépend fan lañ ko opéré ala kulli xaal bu dee ne opéré nañ ko ci biir bi mu am loo xam ne dañ ko caa taf ca loolee ñu ko taf mën na sang yaramam yépp gannaaw ba jël ay loxoom ma masa ca fa nga xame ne ni dañ ko faa taf loolee da ngay gis ne sangu faratam baax na bokk na nag lenn ci borom xam-xam yi bëgg lu gën a peeg ñu ne su ca boole woon tiim na ca boole tiim su ko defee boole ci tiim ba day doon loo xam ne peek la ngir mucc ci borom xam-xam yi waaye bu dee na sang na lam mën a sang la nga xamee ni nii dafa tafu mu taawil ay loxo maase la ko loolu dañ naan sangu na janaba wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah waa ji nga xam ne dafay tukki di wàññi julli ndax mën na naa fi la ku mel ni ibnu omar day mas naa nekk ci tukki bu julli jotee day jóg rek julli gaa yi na ko waaw doo naafile mu ne su ma doon naafile kay matal farata bi waaye yàlla mi ma wàññil farata bi kay kon bal na ma naafile yi te loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane nit ki bu feebaree wala mu tukki mboolem lam daan def ca këram yàlla da ko koy bindal loolee kon moo tax waa ji tukki mën na bàyyi ay naafilaam lu dul daal yenn yoo xam ne nii borom xam-xam yi sopp ñu ñu bàyyi ko muy ñaari rakkay fajar ak la nga xam ne muy wiitre lii moom boo nekk ci tukki da nga koy def soo mënoon naafil it ngëneel la sax ne na yonente bi alei salatu wasalaam daana nekk ci tukki di naafila ci kaw gileemam léeg-léeg gileem gi féete penku léeg-léeg gileem gi féete sow mu continuer noonu ci ay naafilaam heure bu bëggaan julli farata nag daal di wàcc julli farata waaye ala kulli xaal la nga miinoon di ko naafila sa kër boo nekkee ci tukki boo ko bàyyee itamit incha allah yool ba yàlla subhanahu wa taala dana la ko bindal mi ngi noonu waaw bismillah naam dafa waaw dafa tooñ xelam ah koo xam ne xelam neexul koo xam ne ni xelam neexul la jël mu mu daal di koy tooñ ala kulli xaal ki xelam neexul kookee da ngay gis ne boo ko tooñee def nga ñaari ñaari musiba ndax ki xelam neex tooñ ko loolee baaxul waaye ki xelam neexul nga xam ne moom it du mën a fayu du comprendre loolu mooy gën a bon su boobaa it dañuy xool ndax moom ay mbokkam ña nga fa mbokkam yoo xam ne nii ñoom ñoo koy taxawu ñooñee bu dee tooñ nga ko tooñ war ngaa dem ca mbokk ya balu leen ndax bu feebaree ñoo koy faj mi ngi noonu mbokkam yooyu ñoo ko taxawu ci lépp amma bu dee xamoo ay mbokkam lu mel noonu da ngay jéggulu sa borom jalla wa ala te xam ne heure boo tooñee bàyyi ma wala nga tooñ nit kum mën a doon tooñ nga yàlla la nga man nag mooy kookoy xelam neexul xëy na boo demoon di ko jéggalu moom mën na indi sax fitna bu gën a garaaw la nga man mooy ñaanal ko yàlla te jéggalu sa borom jalla wa ala bu dee ay mbokkam nekkuñu fa wallahu subhanahu wa taala alam waaw xam naa waaw ñu mujj ci bokk bale rek waaw waaw waaleykum salaam wa rahmatulah waaw day wax ni benn soxna boo xam ne dafa war a def opération ci cerveau te it lam yaakaar ci dana dund daal lu néew la mi ngi sàkk mbokk julli yépp ñu ñaanal ko ñu ngi ñaan yàlla mi faj yàlla na ko yàlla saafara yàlla na yàlla saafara it bépp julit ala kulli xaal mbokk bi day laaj mu ne waaw ndax nit mën naa góorgóorlu ci jaamu yàlla ba gën ay malaaka waaw loolu lañ ca waxoon mooy daal lépp ci borom xam-xam yi ñoom nee nañu la nga xam ne mooy mursaliin yi ñoo gën ña nga xam ne ñooy malaaka yi mu des nag la ëpp ci mbooloo nit ñi bu dee ñi firi bariya mooy lu yàlla bind day ñoom dañ ne inna alladina amanu wa amilu salihati ulaika hum xayrul bariya te mooy ñi nga xam ne dañoo gëm di def lu baax ñu ne ñoom ñooy ña gën ci nit ñi am na ñu cay sukkandiku ba ne jullit ñi baax ba yegg ci tabbi aljanna yàlla dana leen kaweel ca la nga xamee ni nii moom mooy malaaka yi amma nañ ko waxe woon sànq mooy li am mbooloom malaaka yi daal ñoo gën mbooloom nit ñi yàlla nag dana baaxe ku ko neex ci ay jaamam ba yéege ko mu tolloog malaaka yi wala yéege ko mu romb malaaka yi yàlla nañu yàlla boole ci ñi muy teral fi dunia wal axira ah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain